ñu ngi am mbégte kontaante fas yéene àndaat ak yéen ci suñu dar Jawaahirul Maani tey nag ñu wara a ànd ak yéen ci suñu juróom benn fukkeelu dars ak ñeent ci téere bi ñu toll ci aljuzu saani ci page soixante ci ñi nga xam ne yor nañ nusxa bi sayidul imam Seyd Cheikh Tidiane Alioune mool سيدان الحراز مني ثم قال رضي الله عنه جناو بمنو جنجل جنجل بأمسل بوبو في مراتب يوين خمني حضرات الخمس أمننكو موي حضرات الناسوت بنا خمني موي مرتبة وجود الأجسام الكثيفة نكنونو حدثو الملك عالم الملكوت موي مات موي ماتا وبي خامني فلا سن بروم تي ببلالي تي ببلي لير يسل يا نيتل بي دي عالم الجبروت نغا خامني موي تي بي نغا خامني فلا مبوتم يالا يي نك تي نكو تودي عالم الارواح المجرده تي نكو تودي عالم الملائكه نيتل بي موي تي بلاهوت نغا خامني fa la yàlla feeñalee ay turam ak i meloom ci ay mbóotam ak i leeram ak i bëbbam ak i tey juróomeel bi nag muy tey jii ñuy tuddee haahut nga xam ne xasatul butuni zaati la wala sax ñu koy woowee al ama zaati mooy jëmmi ngumba muy tey bu martaba boo xam ne kenn mënu faa yegg lu duut ni rek aju ci moom yooyu nag am martaba yooyu am ay tur yu wuute ñu jàngoon ko ci lu fasantiku ginnaaw loolu ci daalin xaraazim ne summa qaala topp mu wax moom radiallahu anhu wa maana nafs nafsu nag li muy firi wal ayn ak aynu wa zaat ak zaat wal maahiya ak maahiya walmaiya ak maiya wala almabiya comme ni ñëwe ci nusfa bi ci beneen nusfa ñëw na ci baatu almaiya mu ne baat yi yëpp kulluha alfasun mutaradifa ay baat lañ yoo xam ne dañoo méngoo maanaam ñoo bokkulu ñuy firi mutaradifatu asmaun li musamman waahid lii lépp nag kenn lañ koy tuddee maanaam nafsu mun nga ko delloo ci yàlla aynu mun nga ko delloo ci yàlla zaatu mun nga ko delloo ci yàlla xaqiqatu mun nga ko delloo ci yàlla maahiyatu mun ngi ko delloo ci yàlla maadiya wala maiya mun nga ko delloo ci yàlla mu ne wal kullu nag buñ ci mënti doon ci ñoom yutlaqu ala zaati dañ koy booyal ci jëmm yàlla ji bi shaahidi qawli sayidina isa alayhi salaam ci maanaam li koy firndeel mooy waxu saydna isa alayhi salaatu wassalaam bi yàlla nettali ci alquran ne taalamu maa fi nafsi xam nga li nekk ci sama xam nga li nekk ci man maanaam ci sama xol wala aalamu maa fi nafsik te man xawma lu nekk ci sa jëmm ji yow yàlla nafsik foofu yaani maanaam Cheikh Tidiane yaani liñ ci azar jëmm kon loolu lu am solo la loolu lu am solo la moo tax euh, foofu baatu nafsu ak aynoog zaatu ak xaqiqatu yépp ñoo bokk lu ñu loolu lu am solo la mu ne wa sa'altuhu radiallahu anhu laaj naa ko ba tey moom mawlana cheikh radiallahu anhu an qawlihi sallallahu alayhi wa sallam ci waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni تنام عيني ولا ينام قلبي من دي سمي جت ني نلاو واي سما قلبي دي دي نلاو حديث بوبو كوكاي وير بو ديمي سي بخاري كتاب التهجد باب قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالليل في رمضان وغيره من حديث نمرو 1147 مسلم اللي نكو في كتاب صلاة المسافرين باب صلاة الليل حديث نمرو 738 أبو داوود indi ko ci kitaabu tahaara baabul wudui min an nawm xadis numéro deux cent deux yonentu ne man de samay gët ñooy nelaw waaye sama xol bi du nelaw loolu lañu laaj mawlana Cheikh jaan mu war tontu mu ne fa ajaaba tontu na moom radiallahu anhu bi qawlihi ci waxam ji ne maanaaw li wax ji wundu am na xaasatal bashariya ne yëg-yëgub nit ki tarkudu fi naw mi maanaam dafay dee su fekkee mi ngi nelaw ka aadatil bashar comme niñ ko xamee rek nit ñi aadawoo ko wa qalbuhu sallallahu alayhi wa sallam moom nag xolam bi moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laa yazaalu du di lab mu mutalaati alxadrati alqudsiya ci di eh, seedu li nga xam ne mooy téy yàlla bu sell bi bi muraqabati ma yabruju minha ci di fuglu li nga xam ne moo fay balle minal fuyudaat ci ay xeetu bëbb wa tajaliyaat ak i tajaliyaat wal axwaali ak i xaal wal maarif yi ak xeetu xam-xamu yàlla wa tajaliyaati l asma ak feeñuwaayu tur yi wa sifaati ak melo yi bi mulaazamatihi ci taqoo gi nga xam ne dina ko taqoo ci lima yalzamuhu ci li nga xam ne dina takkoog moom dina méngoog moom ci muqaabalatiha ci euh, maanaam muqaabala ko maanaam euh, muqaabala mooy mu ci janoo bi muy janook moom jànkuwanteeg moom minal adabi ci teggin wa taadimi ak màggal wal ijlaali ak màggal ba tey bi muy màggal te yàlla boobu moo tax loolu du ko fàddu mukk wa wabaisi ma tastaxiquhu ak di ko maanaam di di fa jëf li nga xam ne moom la pays bi yellool minal xidmati ci di liggéey wal ubudiyati ak ci di ko jaamu fa huwa ala hada al minwal daaibun fi yaqazatihi yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu fekkee ci anam boobu la moom euh, moom daaibun aji saxla fi yaqazatihi ci yeewuteem gi laa yaftaru anhu laxza maanaam dara du ko fëtt ci benn jëndeeku wala laa yaftaru anhu lahda wala yasquluhu anhu saagil amul leneen lu muy soxla woo wala jëm yàlla ji ba fàtte jëm yàlla ji xatta aqalla min lahza lu gën a néew jëndeeku sax yonentu bi yittewoowu ko ci leneen وكما كان دائبا على هذا في يقظته لا يفتر عنه نم ci saxee ci ak yeewuteem dara du ko ci rëcc noonu la ciy saxee tamit ci xaalu nelawam ba dara du ko ci rëcc kon la farqa fi mulaazamati zalika fi yaqdatihi wa nawmi yonent bi sallallahu alayhi wasallam sax gim sax ci xadatul qudsi amul différence ci nelawam ak yeewam wa amma nawmuhu sallallahu alayhi wasallam daal nag nelawam moom yonent bi alayhi salatu wasalaam fa inna ما حده وغايته وقوعه على حواسه البصرية دايتلو نلوم الدايب نلوم من يمرد في يديه بصريتهم ولا يتعدى نومه إلى قلبه لو يدي مكبا يدي في قلم حتى يغفل بمي سجنه ولا بمي فات عن مصالعة الحضرة إلى يدي janoog pays bi nga xam ne mooy pays borom bi kama huwa xaalul basari comme ni nga xam ne ñun noonu lañ mel buñ bal jamiu nabiyina hakada alayhim asalatu wasalaam du moom rek la yàlla jagleel waaye yonent yi yëpp alayhim asalatu wasalaam loolu yàlla jagleel seeni bët mooy nelaw waaye seen xol du nelaw ndax ñoom ñoo fàddu péyeb yàlla bi intaha ma amlaahu alayna radiallah nee na jeex na li nga xam ne Mawlana Cheikh Tidiane fité nañu ko ci masala boobu wa mimma amlaahu alayna bokk na ci lim ñu cité radiallahu anhu qaala wax na ne adadul xujubi allati fawqa alarsh arsh sabuna xijaaban lima kiiraay yi nekk ci kaw aras juróom ñaar fukki tiraay la baada kulli hijaabin wa hijaabin sab'una alf am diggante hijaab bu ne tiraay bu ne ak moroom ma doxub juróom ñaar fukki junni at la wa ziladu kulli hijaabin sab'una am taraayu maanaam diisaayu hijaab bu ne ak moroom ma toll na ci dox doxu juróom ñaar fukki junni at wa min fawqi dalik ak li nekk ci nekk na ci kaw hijaab yooyu aalamu riqaa wala alamu raqa moy peey bi nga xamne moy mooy bi ñu ci jëm yàlla ji aalamun peey la bo xamne nak mamluun aji fees la bil khalq ci ay linde mbindeef yooyu nak yani al malaika moy malaika yi peey bo bo fa yegge ay malaika rek ñoo fay nak wa kullu hadhihi al hujub mbolam ci ra yooyu nak mamluun bil malaikati dafa fees dal ak ay malaika al kiram yi way tedd alayhi assalam وكل حجاب كراي هو مهم عالم تيلا ومن وراء هذه الحجب نتنا سجنا ويوي لكراي كلها مولفين الطوق الأخضر آه، منام نتنا في الطرف الأق... آه، ومن وراء هذه الحجاب كلها الطرف الأقصى بوك طرف منام أجب بوك من أقصى مو جنصري وهو انتهاء عوالم المخلوقات سموي دايتالو دايتالو تيب بنديسي امنا نجند الطوق الاخضر بعد ما يجي جاير بس احمد فكري لولا بند واي بوينيتي جاير معني دي الطرف الاقصى لبند ومن ورائه نك نك لا خلاء ولا ملأ maanaam dara nekkut fa rek doo ko fekk mbindeef doo ko fekk dara looy wéttaliko kaana allahu wala siamahu yàlla dong nga fa nekk te dara nekku faak moom wa maana wa hada maana qawluhu sallallahu alayhi wa sallam loolu nag mooy maana waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu waxoon laylatal isra ci guddig isra lam ara inda ru'yati rabbi ahadun min xalq ba may jan ahadan min xalqi ba may janoog sama borom subhanahu wa taala gisuma fa bindeef maanaam jamono ji nga xam ne maa ngi yegg ci yàlla bindeef nekku fa man kon péer yàlla bi du fenn fu duut ci labale lépp ci ci ci jëm yàlla bi xatta danantu ne ba ma foog ni آه، أن كل من في السماوات والأرض كلهم قد ماتوا بمن جوابت منك تشي أسمان السجن يبدين انتهى جعل ما أملاه علينا لم يفسد في مسألة بوب رضي الله عنه وسألت لجناكم رضي الله عنه عن قوله صلى الله عليه وسلم جوه ينتبه صلى الله عليه وسلم بمي وحن حجاب النور لو كشفت law kasafahu laxtarakat subuhaatu wajhihi mantaha ilayhi basaruhu min xalq mu ne laaj naa ko moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci waxu yonent moom Cheikh Tidiane radiyallahu anhu ci waxu yonent bi mi wax ni kiiraa li dox sama diggante sama boroom leer la goo xam ne buñ ko wuññi woon dina euh, laxtaraq subhaatu wajhihi ma adrakahu basaruhu min xalq lépp loo xam ne rek maanaam bu yàlla wuññi woon tuuti rek ci ci ci ci leeraayu jëmmam ji moom jëmmi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafay seey ci saasi ci beneen riwaaya mantaha ilayhi basaruhu comme ni ñëwee ci xaafiya euh, bi nga xam ne imaamu muslim indi na ko ci kitaabul baabu qawli inna allaha la yanaam loolu muy lu ama am solo fa ajaaba radiallahu anhu mu tontu ci moom radiallahu anhu bi qawli ne maana hada maanay loolu mooy anna al mawjudat law nadarat ila allah mbindee ci ñoom saa yu ñu xoolee ci jëm yàlla ji bila xijaabin ci lu dul kiiraay wa adrakathu absaaruha te seeni gis daa di jot jëmm ja laxtaraqat subhaatu waji subhanahu wa taala jami al mawjudat jënn yàlla ji sell jooju dafay daal di lakk feeyal mbooleen nekk teef allati yi nga xam ne adrakatu absaaruha bila xijaab seeni jët jot na ci jënn yàlla ji ci lu duwut kiraay wala rajaat fi asra'i min tarafati ayn te ximmal dinañ ximmaliku ci lu gën a gaaw ci tefak tippi ilaa adami wala bo dinañ dellu ci lu gën a gaaw ci tefak tippi ilaa ci seen ñàkk gu njëkk ga kon mooy yàlla ku yegg ci moom jeex ndax jaam bi moom majaaz la wa qawluhu waxam ji nag maa sadafahu an jamil mawjudaat du wax joo xam ne mboolem mawjudaat yi lay wax waaye wa damirul axir ci adrakahu damir bi allah day dellu ci yàlla wa faailu adrak nag huwa basaruhu mooy ay gisam gisam وضميره والضمير في بصري هاجنك في بصري هو المعنى بقوله إيه، موي معنى في وخمدي من خلقه في أي من دفن وهو أما أنا وقوله وخمدي nga منك ne حجاب النور في wax ne hijaabu nuur fiiraay li dox ci fa huma ñoom ñaar ñooñu nuuraani ñaari leer la yoo xam ne xaajibaani lil xalqi ani nabari lil xaq ñooy xiir nit ñu baña a xool jëm yàlla ñu bañ a yegg yàlla kon lim la bëgg a jàngal mooy alxijaabul azam kiiraay lu màgg li alxijaabul awal kiiraay wu njëkk yi nag huwa alxaqatul muhammadiya mooy xaqatul muhammadiya fa innaha moom xaqiqatul muhammadiya hiya al barzaqul akbar mooy digale gu mag gi nga xam ne moo dox bayna allahi wa bayna xalqihi ci diggante yàlla ak jaamam yi wal xijaabu saani ñaareelu kiiraay bi nag ridaul kibriya mooy koddaay ak màgg ak jëm yàlla bi subhaanahu tudd na ma sellam wa taala te kawe na fala sabila ilan firaqihi kooku nag amul lenn lu ko mën a ñari وقول الشيخ وغسر دينك مولانا آه، عبد السلام بن مسيح رضي الله عنه هو حجابك الأعظم القائم لك بينك فتيراي قمت دين القائم ويأجي تخو بين يديك السكنم أراد به الحق المحمدية لن تجيب له موي حقة المحمدية كون حقة المحمدية موي كيرا لي بجنت جاني أجي الله ak yalla motax الحجاب الأعظم tuddé آه، moo tax Cheikh Ibrahim radiallahu anhu wax na ni wa mahma taqul laa laa sabila li wasli man tuhibbu fa qul laa laa araaka siwaahu fa anta muraadul kulli fal kullu waasilun fa mahma daraaka al abdu naala munaahu waaye ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam saay taxawee di la hiir jëm yàlla ji ne ko ba ne la amoo amoo amoo capacité pour yegg ci ne ko laala araka siwaahu gisuma yàlla muy keneen ku duwut yow kon kiiraay loolu moom la abdusalaam ibnu masih radiallahu anhu doon junj ci waxam jooju wa xijaabuka al azamu alqaimu bayna yadayk muy xaqatul muhammad yi ndax fa inna xijaabiyatuhu sallallahu alayhi wa sallam ndax kiiraayam gi moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wadaat li tamaamil ifaada yàlla daf ko fa teg ngir matal ak njëriñ laa lil manayi min al ifaada waaye yàlla tegu ko fa ngir xam ni ñu jëriñu ndax mooy buntab yàlla bi buntab yàlla ku ci yegg jëriñu fa innahu lawla alxijaabu bu nekkutoon kiiraay googu lam yaqdiril xalq an yubaasiru bil ifaadati minhu konoon bindee fii duñ mën a jàmmaarloog yàlla ba mën a jëriñu ci moom bi nafsi wuquwi absaarihim ala subuhaati wajhihi euh, tahriqul mawjudaat saa yoo xamee ni nag kiiraay loolu nekku fa ba doomu aadama yi janoog yàlla ci jëmmam ji ci lu dul ci raay lu mag yi konoon seen nekk gi yëpp dafay daal di jeex fala wujuda aslan fadlana min ifaada kon doo fa fekk sax ak ak nekk ba jëriñu di fa am fa inna al ifaada min waraa il wujud ndax jëriñu mi ngi nekk ci ginnaaw ak xam ba loolu amee nag fa nasaba xijaaban bayna allahi bay na yadayillaa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla daal di koy fal mu nekk ci raay boo xam ne moo nekk ci kanamam li yastafiida al xalq ngir mu jëriñ nit ñi bi sababi wujudihi ci sabab ak nekkam boo xam ne maadatu wujudihim wa ibqaa'i wujudihim mooy matière bi amal mbindeefi waaye tamit ci moom la mbindeefi di defe wa maadatul ifaadati min allah matière bi nga xam ne ci lañu jëriñoo mu tukkee ci yàlla maanaam jëriñ moom ci yàlla rek lay jógee is jamial ifadatu min allahi mutlaqan ndax mboolem njëriñ yi ci yàlla lay jógee ci booyal bu ko defee nag yatalaqa al hijabul adam min allah kiiraay lu màgg li mooy moo koy gàttandu jëlee ko ci borom bi tabaraka wa taala li ndax nekk gi xam ne nekk na ko moom kiiraay lu mag loolu nga xam ne mooy yonantu bi alayhi salaatu wasalaam qawwaahu bi quwwati yi ne yàlla kàttanal na ko ci kàttanam gi summa yufiduha ala jamil wujud topp nag bu jotee loolu na xam ne yàlla jox na ko ko mu yenkawal ko maanaam bëbbal ko mu jëm ci mboolem bindef yi moo tax Baay radiyallahu anhu wax na ni zaatu moom buy def tajalli dafay def tajalli ci kamaliyatoom yàlla za tajallati zaat tajallat bi kamaliyatiha wala bi kamaliha loolu nag li ko waral mooy yàlla léppam daf ko jox yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu def mu taxaw ne man maa yàlla yaqulu sallallahu alayhi wa sallam yonent wax na ni wala boog fa hada loolu maana al mooy maanay kiiraay gi nga xam ne nusibat lil ifaada moom la yàlla fas ko teg ko ci kanamu mbindee yi ngir ñu mën a jëriñoo ci moom يقول صلى الله عليه وسلم ينتبه صلى الله عليه وسلم وحنني الله إنما إنما أنا أنا قاسم من ما يكيس الدل والله يلا معطي موجهه حديث بو إمام بخاري ترى في كتاب العلم باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين من حديث من رسان مسلم إن في كتاب الزكاة باب النهي عن مسألة عن المسألة في حديث من ترانسفت كون حديث بو wér la مولانا شيخ جان يشير حديث بو نك داي جنجو يشير صلى الله عليه وسلم الى ان الاقتطاعات الالهيه للقوابل الاصليه كانت مقسومه بحكم المسيح مسيح من حديث بو يونت صلى الله عليه وسلم دك في جنجو نه سدل بي الله للقوابل الاصليه كانت مقسومه بحكم المسيح نام يالا اك سدل دكو dogal ci masiiatoom masiiatu rabbaani laysa li gayrillaahi fiha madxal amul kenn ku am benn cër ci ni yàlla di seddale ndax nu xasam naa bay na mu maayisatohum wa min daabatin illaa ala llaahi risquha risqu sax bu ko yàlla di tudd ci alquran amul fenn fu mu koy askanale ci benn mbindeef risqu moom ala llaah laysa li gayrillaahi fiha madxal ku duwut yàlla amu ci ab dugguwaay wala ab génnuwaay ثم جعل سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى, سبحانه وتعالى دف يرنتو صلى الله عليه وسلم قائما له في توصيل تلك القسمة منك كمفل غير متخاو سدل جوت لي نيني بوبو لي سدل المنفصل ييغا خامني داف كو بحكم المسيئة ات توبرم التي ييغا خامني قلنا هي اقتطاعات الهيه الى اربابها séddale la goo xam ne kojak borom bi la maanaam yàllaa ko séddale ila arbaabiha mu jëm ci seeni borom wa hiya al qawaabil al asliya te yi nga xam ne moom la moom lay nit ki di gàttandu ci cosaan fa laysa yonti sallallahu alayhi wa bi shay'in min al wujud amul lenn loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dina ko joxe ci wujud gi Euh, euh, amran mbir min al umuri ci ay mbir illa ma aataahul lu dul li nga xam ni yàlla jox na ko ko ci séddalem gu njëkk bi kon nag fa baana lak dina leer ci say bopp ci sa bopp ne an na buruuz al ataa ne feeñ ak joxe min al xaq ci yàlla jumlatan wa tafsilan li man urida dalik maanaam yàllaay joxe ci képp ku bëgg dégg dégg amul wërsëg buy yegg si ci lu dul ni yàlla la ko dogal wa fi martabati xaqiqatil muhammadiya yuti li arbaab yi ci martabaab xaqiqatul muhammadiya la koy joxee seeni borom di xasabi nisab ci kém ab askanam kon gis nga ahadiyatug yàlla ji li ñuy joxe yépp ci sirróom la koy jaarale uluhiyatoom ji li ñuy joxe yépp ci róom la koy jaarale ahmad yétoom ji li muy joxe yëpp ci jismu bi la koy jaarale ni ki noonu xilaafatoom ji li muy joxe yëpp euh, maanaam malakuutam malakuuti yétoom ji li muy joxe yëpp ci xilaafatu la koy jaarale waaye euh, naasuuti yétoom li muy joxe yëpp ci nafsoom bi ci la koy jaarale kenn ku ci nekk dañ lay séddale dañ lay sédd ci kéem sab ni sax léegi nag ku ñëw ba ci aalamu jam il jam yi yow lépp day wàccandoo ci yow moo tax ku yegg gut foofu matoo loolu mu ne fa hada loolu maana al mooy maanaa xadis bi ana qaasim man maay séddale wallahu muatin yàlla mooy joxe loolu di lu am solo euh, euh, mawlana cheikh tidiane radiallahu anhu al xijaabiyatu l ula xijaab gu njëkk yàlla ci حجاب الكبرياء موي حجاب ما جاي ولا سبيل الى انخراقه كيرا لول كن من كولك والحجابية الثاني كيرا يجنار الدي للحق يلنا حق يل يالا حجاب الحقة المحمدية موي كيرا الحقة المحمدية بينا كم دي بين الله وبين الوجود في ديجنتي جنبه فمي wal hattatul muhammadiya hattatul muhammadiya nag duunaha xujubul anwaar nekk na ci ronam ay kiraay ak leer fala madma li ahadin an yasila ila al hattatul muhammadiya amul kenn ku am capacité yegg ci hattatul muhammadiya yataxatta xujubal anwaar allati duunaha muy jéggi kiiraay ak leer yi nga xam ne moo nekk si innama tajalliyatul xaqi kulla min waraay xijaabil kibriyaat tajalliyaat yi yàlla di def yépp mi ngi ñëw ci ginnaaw tajalli yi nga xamne moy mooy kibriyaaw wa min warai hijab ci ginnaaw xijaab boobu nag alxaqatul muhammad muhammadiyya xaqatul muhammad ya moo fa nek fo min warai al hujub allati dunaha ci ginnaaw kiiraay yi nga xamne ne ñoo nekk ci ginnaw xaqatul muhammad ya yi tamit loolu rek moom mo fay fekk wa innama wusul ila allah yegg ci yàlla nak nag ta am ludut min babin nabi sallallahu alayhi wasallam ludut ci buntu yaronte sallallahu alayhi wasallam ngay jaar bi kawnihi baaban fil wusul ila allah ndax mooy bunt bi nga xam ne moom lañ mën a jaar pour yegg ci yàlla moo tax woykat bi ne anta baabullahi ay yumri in waafaahu min gayrik laa yasul yaay bunt bi yàlla bi ku képp koo xam ne mi ngi bëgg a ci téer yàlla bi te jaaru ci yow du yegg bu ko defee nag wa innama maana dalik maanaam loolu nag yonent bi mooy bunt bi yàlla mooy danga koy topp bi mutaabaati shar'i bi topp shari'am waqtifaa'i sabilihi kenc yoonam bi التخلق بأخلاقه لديكو أيديكم والتأدب بآدابه نتجن في أي تجن ما إخلاص الوجهة في ذلك كله إلى الله عندك سلل تجبلو في لب لول من أم تابو شرابي سنتو يونوا ديكو ديكو يباه تجن في تجن داي أندل نجا سلل في يوني جير يالله فبهذا المقدار دايو بوبنا يصل العبد إلى الله كلا جامد بيجي الله تعالى تعالى وبغير هذا المقدار كجار كجار واي بوب لا سبيل للوصول الى الله امو بن يون بومن جار كوريا يجي الله فالواصل الى الله كي يجي الله اذا كان يريد ان ينزاح عنه الحجاب مطلقا سبجي ينيورل كيراي كراجي بفاو ويصل الى الله مخدا بلا حجاب يجي في الله سلوده بن كيراي او يتخطى الحجاب الى ما وراه ولم يجي كراي دكو تجناو جناو فهذا